ci kaw Congo match bi nag tàngoon na jër 2-2 la match ba jeexe ñu dem prolongation mu jeexee 3-3 waaye ci tir au but ci la ñu teqalikoo équipe nationale bu Tunisie nag mooy jàkkaarloo ak équipe nationale bu Sénégal kon nag dinañu jàkkaarloowaat ndax équipe nationale uv bi ci Tunisie la demoon laata muy dem ci Égypte te ba ñu wàccee foofee amal nañu ñaari match amical waaye ñaari match yooyee Tunisie amu ca woon ndam match bu njëkk ba dañoo témboo kenn dugalut ci sa morom waaye ñaareelu match bi Sénégal moo amoon ndam dóor ko ñaari bal ci benn dinañu jàkkaarloo nag ci demi-finale bi demi-finale boobee ñoo ngi ko war a jongante altine bu 14h jotee kon nañu ñaanal équipe nationale bi mu am ndam ci kaw Tunisie ndax gone yi mën a dem ca final ba bu ñu ca demee tamit ñaan jël coupe bi indi ko ci réew mi. ñu jugee ci CAN u bi dem ca waa Chelsea ñoom nag suba Leeds United la ñuy jàkkaarlool bu trois heures jotee laata nag match ba di am xam ngeen ne conférence de presse day am Graham Potter mii tàggat Chelsea jàkkaarloo ne tey jii ak taskatu xabaar yi wax na nag ci blessé yi nga xam ne club boobe am na ko jamono jii bu dee Mason Mount moom wéragut te suba du bokk ca match boobee bu dee Reece James moom it bokkam ca match ba wóoragut li ko waral moo di dafa am ay douleur maanaam day yëg méttit ca tànk ya muy Reece James kon bokkam ci match bi suba wóoragut bu dee Ngolo Kanté ak Edouard Mendy ñoom teel na ngir ñu bokk ci match naam ña ngay wér waaye suba du ñu mën a bokk loolu la Graham Potter xamle bu dee cago Silva moom ma ngay tane waaye ñëwagul léegi lu mu gàtt-gàtt dina toog juróom benn ayubés maanaam six semaines du dugg ci terrain football Graham Potter nag moo xamle xabaar yooyu jógee ca clubam di Chelsea ñu jugee ci waa Chelsea ak seeni jafe-jafe jël doomu Côte d'Ivoire bii di Franck Kessié di football ca Barcelone bu ñu sukkandikoo ci Esport jamono ji bëggagul jugee ca club boobee bëggul sax kuy wax waxi jëlee ko ca club boobee moom nee na lim bëgg moo di toog ca Barcelone bind fa taarix moo tax club bu ñëw indi offre ngir jënd ko noppiwul ngir déglu la ndax lim bëgg moo di toog foofee doxal fa ba réussir fa muy Kessié xibaar boobu esport moo ko xamle. ñu jugee ci Franck Kessié ak i bëgg-bëggam dem ca waa Bayern de Munich ñoom nag siiwal nañu tey jii ne yokk nañu contrat wu doomu Cameroun bii di Eric Maxime Choupo-Moting ba atum deux mille vingt-quatre waxtaan bi nag yàggoon na lool waaye jubo nañu officiel na yokk na contrat ba atum 2024 kon Éric Maxime Choupo-Moting day des ca Bayern de Munich di doxal ba atum 2024 loolee officiel na. ñu jugee ci Éric Maxime Choupo-Moting jël doomu Espagne bii di cago Alcantara nekk millier de terrain bu mën la muy def am 31 ans xibaar yi nag bari woon na lool di wax ni moom dafa bëgg a jugee ca Liverpool waaye Fabrizio Romano nee na doomu Espagne bi. xelam nekkagul jamono ji ci jógee ca Liverpool ñu bari nag ñoo ngi ko doon tudd ca Turquie club bu ñuy wax Fenerbahçe waaye loolu nag doomu Espagne bi bëgg koo dégg li mu bëgg moo di toog wéyal ca Liverpool muy cago Alcantara xibaar boobu Fabrizio Romano moo ko xamle ñuy jugee ci Thiago Alcantara ak i bëgg-bëggam waaye doomu Espagne yi duñ leen bàyyeegum dañuy jël David De Gea bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano Manchester United ak doomu Espagne bi door nañu waxtaan ngir mu yokk kontraam toog foofee doxal li ko waral moo di Erik ten Hag mi tàggat club boobe moo wax njiitu club bi ne leen taxawaayam ci club bi am na solo lool kon yokku leen contrat rawatina saison bii ñu nekk ndax dafit De Gea ngi def saison bu baax ak waa Manchester United xibaar boobu Fabrizio Romano moo ko xamle. ñu jugee ci waa Manchester United ak seeni bëgg-bëgg dem ca waa Real de Madrid bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano doomu Portugal bii di Antonio Silva. nekk defenseur di football ca Benfica wa Real de Madrid ñoo ngi koy bàyyi xel gone gi dix-neuf ans képp la am waaye défenseur bu footballu Portugal am ci moom yaakaar la waxtaan nag dooragut waaye Real de Madrid ñoo ngi koy bàyyi xel ngir bis ñëw ñu jëlee ko ca Benfica yóbbu ko ca Santiago yu mu doxal xibaar boobu Fabrizio Romano moo ko xamle. ñu jugee ci waa Real de Madrid ak seeni bëgg-bëgg dem ca wa Barcelone officiel na Sergio Roberto bokk ci capitaine u Barcelone yokk nañu contrat. am ba atum 2024 ndax gone gi kat taxawaayam ca club ba la ñu gis moo di am na solo moo tax yokk nañu benn at ci contrat bi nga xam ne moo ko lëkkale woon ak club boobee kon contrat bi leen lëkkale jamono ji atum deux mille vingt quatre la war a jeex muy Sergio Roberto. ñu jugee ci Sergio Roberto dem ca équipe nationale bu Brésil ñoom nag la vingt cinq mars war nañoo jàkkaarloo ak Maroc mu soxal match amicale liste ba nag génn na am na ay absent waaye am na gan yoo xam ne ñëw nañu ngir jàppale équipe nationale bu Brésil ca match amical boobee. absent yi nag mën nañu caa lim Neymar Alisson Rafinha ba ca Thiago Silva ñëwuñu gan ñi nag ki ñëw moo di Andri Santos mi nga xam ne bu yàggul la ko Chelsea jënd ak gone gi nga xam ne waa Barcelone ñoo ngi koy bàyyi xel muy Vitor Roque match boobee nag la vingt cinq mars la ñu koy football Maroc mooy dalal Brésil ñu jógee ci équipe nationale bu Brésil dem ci équipe nationale bu Argentine ñoom it am nañu ñaari match amical ci weeru mars bii ñu nekk war nañoo jàkkaarloo ak Curaçao war nañoo jàkkaarloo tamit ak Panama waaye équipe nationale bu Argentine woo nañu gone gii di Garnacho mi nga xam ne ca Manchester United